salaamaaleykum mbokki info Rewmi nuyu nañ leen gën gi nuyoon ni ma koy waxee ne leen saa su ne na ngeen ko bëggee noonu lañ koy xel di defee ak yéen ni ma koy defee rek def samay daagu def samay yëf daal di fekk ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo waral tey ñuy def déplacement yi nga xamante ni tey euh, moo ngi nii gis nga ko nee naa la saa su ne ni nga ko bëggee nii rek lañ koy defee fii rek lay xewee ci info Rewmi point com tey ma ñëw seet si ki nga xamante ni mën naa ni kenn dootu ko présenté ci animation sénégalaise euh, mi ngi nii toog sama wet Alima Ndione la tudd yaakaar naa ne c'est pas la première fois may jàkkaarloog moom di def waxtaan bii nii nga xamante ne tey euh, mën naa ne chaque at dañ koy seq man ak moom euh, du ma def lu dul bàyyi mbokki internet yi ah, ak Alima Ndione mu daal di nuyu la bu bu baax di nuyu internet yu Infos Rewmi yëpp yow ñoo fa yow sama rakk nga dañoo yàgg ah, donc di nuyu internet yi euh, ak équipe bi nga àndal ñoom Cheikh ak ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Mm-hmm. Alima tey fu may dugg mooy ci animation parce gis nañ ne animation tey nekk na loo xamante ne ku jóg rek. da nga ciy dugg euh, am na ñoo xamante ne dañ ciy jàll am nañ ko réussir mais am ñoo ne boo leen teggee ab à travers seen voix wala ci animation di nga xam ne ñii li ñuy def euh, c'est pas lu teguwul la quoi tey lan nga yaakaar ne tey ku jub dugg li ñuy wax nag nii ku jub dugg ci defe naa ni loolu ñi ci jiitu ñoo ko war a sant yàlla ndaxte métier la boo xam ni ñun euh, démb xëy na liñ ci dégg yombul woon parce que mag ñi dañu doon yaakaar ni ku ci sa doom dugg rek dafa war a bon. donc ñi ci ñëk ñoñu ño wara sant yalla ndax légui balisé nañ yoon bi ba nga xamanteni ni xalé yi ñëpp bëgg nañ ko té mag ñi aussi eh, ku ne bo sañoon sa doom nekk ko waaye nak gannaaw biñ ko bëggé da fay laaj teewlu waaw c'est-à-dire jege ñi nga xamante ñoo la ci jitu ëpp la ci expérience loolu mo la ci kenné parce que sa xam-xamu bop rek parce que dernière génération muy man muy ñeneen ñi ñeneen ñi nga xamanteni man ak ñom ñoo bokk génération amul kenn ku ci dem école jangii donc genn wàll gi yëpp bëgg-bëgg la nga dugg ci waaye nag gannaaw bi nga ci duggee fexeel jege ñi la ci ëpp xam-xam wala nga leen di déglu. mais est-ce que yaakaar nga ne ak nouvelle technologie bi nii boo jàngul li ci yéen. moy li ma wax nak xam nga bu fekkente ni demoo jàngoo ko école nga dugg ci li ci gën moy euh, so mënee jege ñi la ci juutu xeyna na ñu indiqué la soko ko mënul jegeel euh, école yenn yi nga xamanteni mën nga jangat touti par exemple jang touti communication euh, yenn règle yeeg affaire yoy noonu bu ko defee nga mën ci génn mais sinon bo doy boo doyloo sa xam-xam bop tu vas pas t'en sortir vraiment. ci way damay dégg ñu né way voilà ak li nga xam ne di tegu ci musique animation pour yow lan la. animation nag man euh, voix baax na ci waaye pour man amu ci solo trop trop trop ndax soo seetloo animateurs yi ngay dégg Sénégal yëpp sax à góor jigéen mag ak ndaw bokkuñu même timbre vocal bokkuñu ay voix ñi dañoom am ay baat yu sew. ñi am ay baatu rok sama compagnie bi ñun ñi nga xamanteni suñu waxe da nga yakane sa benn ponk lay wax goor ay wax ci ci ci ci radio bi euh, donc voix amna ci solo waye pas trop pas trop parce que ku nek ak ak li amna ño xamanteni ni xeyna suñu déglu baatu nit ki bu par exemple am baat bu sedd baat bu neex euh, mom mo leen di neex ñeneen ñi peut-être bu ñu alima euh, baat ni baatum mu mom mo leen di neex suñu déglo keneen ku nek ak lu neex ci mom voilà ñu gis la ba tey ci animation euh, bi ngay nekk XFM ak bi ngay nekk fii dafa am différence parce que bi ngay nekk XFM seeti naa la waxtaan nañ ma ne moom gis naa ne nga doon animé animation bu teggu ci yoon la bu neex la ñi ñi daan ko consommer ñu gis nga ñëw fii daan nga def même animation mais après da nga am loo ci dolli muy lan euh, muy euh, euh, animation traditionnelle bi des fois ñu gis la nga teg nga teg nga teg ay Soda Mama des fois ñu gis la nga teg ay Alassane mbay des fois ñu jékki-jékki gis la nga dugg ci Kinalaam xam nga ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne tey ci animation la bokk mais ñu si bëri daaw ñu koon faral di ko indi lan moo waral nga def virement boobu noonu waaw xam nga euh, sant yàlla parce que su fekkee par exemple soo nekkee animateur danga war a bëri facette cest à fu ñu la teg war nga faa mun a góorgóorlu ba génn ca euh, ñun bi ñu nekkee XFM comme nii ta dama naka jekk man dama mës di décortiquer way c'est vrai que bi ma ñëwee Zik FM nag ci laa gën a taxaw ci traditionnel parce que Zik FM euh, comme li ñuy wax rajo askan wi la te ñi koy déglu jigéen ñi ak mag ñi dañ cee ëpp. jigéen ñi ak mag ñi nag li ñuy gën a consommer musique traditionnelle ci la bokk donc bu ñu ñëwee fekk nañ déjà euh, Zik FM mag ñi ak jigéen ñi di déglu musique traditionnelle donc bi ñu ñëwee loolu ci Zik FM la bokk dañ ko boole ak li ñu yoroon loolu moom moo ko waral pour mën a couche bu nekk ñu mën la satisfaire malgré ko mënuñu béggal ñëpp mais ñu def suñu kem kattan ba mag ndaw góor ak jigéen fu ne ñu bégal fa ñenn ñi. voilà ñu gis ne Sénégal euh, far favoriser wu ñu traditionnel te alors que ñoom ci lañ bokk lan mooy solution bi ba animateur yi wara mëna jël traditionnel boole ko li nga xamné mo Sénégal. comme ni ñuy def. xam nga tay euh, musique traditionnelle tay sama yaay bi koy déglu wala wala wala peut-être yow sa tante bi koy déglu mën na bañ dégg lépp li ki Lam di wax mën na bañ dégg lépp li Soda Mama di wax dé ko tiké ko joxoon musique bi valeur animateur non lay jaay musique jox ko décortiquer ko moom mu dégg li ki nelaam di wax yenn say animateur décortiquer euh, musique ba nit ki koy déglu dégg ci lu lu nekk ci wayu te dégg ko woon jël musique bi génne ruq-ruqaat yi ba mu neex ki koy déglu nañ def noonu ñu ci parce que musique traditionnelle ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom nañ ko wane euh, li Alsaan Mbay di way yenn saa yi euh, kii déglu mën na ko bañ a dégg waaye boo ci taxawee tas tasal ko dina ko dégg mm-hmm. voilà bi nga nekkee fii ba tey laajoon naa la ko bi nga nekkee fee ma ne la ban surprise nga mës a am ci animation loo xam te ne neex na la mais bi nga nekkee fii ba tey ci animation lan nga si am loo xam ne gën la la ak loo xam ne gën na la seen naqari waaw man li ma ci gën a neex nag man chaque jour euh, li may neex mooy su ma defee émission ba pare euh, jot yenn appréciation par exemple sentir ni nit nit ñi doon déglu du ñëpp mais ñenn ñi kontaan nañu loolu daf ñuy neex li ñuy euh, naqari mooy comme li ma la wax def dara ba pare au fait nga yëg ni nit ñi yëguñu ci seen bopp yooyu dinay faral di métti animateur mais man nag yu may naqari du bëri si ñoom man damaa neex deret <laughs> dama fair play <laughs> yi may naqari du bëri parce que man moom euh, chaque jour damay jéem a gis li ma neex parce que li la li la naqari soo ko dee jël di ko yenn chaque jour ay rek mm-hmm. te ñun li ñuy liggéey soxlawul loolu mm-hmm. man lu ñëw dama ci dama koy def lem rek mm-hmm. def suukar naan maa loolu. voilà tey nag euh, mbekku internet yi dafa ne am na ñoo xamante ni foog ma dugg fa foog ma dugg fa ak yow parce que ñii dañ naan dégg naan Alima divorcé na Alima sëy bi lii Alima sëy bi laa ma leen yéen waaye yéen ma sa <laughs> divorcé jàmm la moo seen yoon ah loolu yoonu kenn ñoo si mais dama lay laaj yow mi ngi naan euh, la mu saf ko ko ma ci ko xam euh, sëy neex na wala neexul. pour ñi nga xamante ne ñëwaguñ. <laughs> sëy neex na si ñu am benn problème sëy neex na de yow sama rakk nga dama wax loolu neex na trop leen de sëy leen sëy na. waa amagul jëkkër te gis nañ ne Alima divorcé na dañuy yaakaar ne dafa dugg neexul moo tax mu génn yan conseil nga leen di jox. noonu nañ jàpp rek ñi nga xam ne am nañu nañ jàpp téye góorgóorlu waaw taaru jigéen say ñi nga xamante ni amuñu itam eh, yal na leen yàlla dajale ku baax bu leen yàlla boole ku baax toog leen te sëy te muñ de. waaw sëy daal mooy taaru jigéen sëy leen de mais Alima nga yaakaar ne ñi ne ci milieu bi euh, muy musicien muy euh, artiste muy animateur ñëpp ñëpp ñëpp. nga yaakaar ne ko si dem ba dugg ci sëy est-ce que benn bunt boo xam te ne dalay tënk c'est-à-dire tey hmm, neexul maam jabar mu xëy dem soraanoo ne day présentation

donc daf la cee war a jàppale c'est vrai que du yomb nag parce que nga am soxna nga xëy dem moom mu ne ci mbedd bi ba 2 heures du matin 3 heures du matin c'est pas évident góor yi ko mën a muñ waaye góor bi nga xamante ni ñoo nga fekk ci sa soxna nga ne di nga ko ci jàppale jàppale ko ci. parce que defee ñu dara lu bon ñun ñëpp njaboot moo ñu tax di daw ndaxte bu ñu amee c'est vrai que góor ñi ñoo ñu war a yore waaye bu ñu amee dañ koy bokk ak ñoom nag nañ ñu ci jàppale. foo toll ak sa club bi waa waa cercle des VIP sant yàlla moom miin nga cercle des VIP yow moom du ma la expliquer dalaay cercle des VIP parce que miin nga leen euh, ñu ngi ci ñu ngi doxal seen activité ba léegi ñu ngi pare ay programme yoo xam ne incha allah xam naa bëgguma wax léegi mais bu sottee yow di nga ci xam dara ci ñi njëkk a xam dara ci ngay bokk waaw cercle des VIP mi ngi mi ngi dox yoonam. à part animation bi Alima ci lan la nekkaat leneen parce léegi nga waykat yi ñee ngi ubbi ay ay salon ñee ngi def ay ay ay nu ñu koy waxee ay fashion yu kenn xamul à part animation bi. waaw comme li ma tax ma wax rek ñu ci ñu ngi ci ay projet waaye nag comme la ñuy wax ku yoddu sa te ku ñëpp xam foo jëm du yegg doo yegg mu sottee incha allah ñun ñëpp dinañ ci jot mais ñi ngi ci ay projet incha allah lu bokkul ak animation. <laughs> voilà sama réalisateur mi mooy def signe ne ma temps bi mi ngi jeex ma bëggoon xam exactement lan ngay tëjee waaw kontaan rek yow xam nga li ma wax léegi suñu rakk nga yow bi ñuy bi ñuy nekk sama rakk nga sama xarit nga euh, bi ñuy nekk booba nekkuñu seen TV nekkuñu Zik FM donc dañuy kontaan a chaque fois dañuy am mbégte bu ñu la gisee te gis nañ yow yaa ngi percé macha allah yaa ngi ci ñu ngi lay suivre ci info bi <laughs> parfois seetaan la donc mu ngi noonu mu ngi nice et ñu ngi gërëm internet yi Cheikh donc ñu ngi koy gërëm ak équipe yi ngay àndal yëpp di liggéey ñu ngi kontaan bu baax et soppee soppe euh, baal leen ma soppe xarit am di jàmm ñëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax voilà yan yàlla defal ñëpp jàmm voilà gis ngeen ko noonu Alima Ndione la woon ah séeréer bu nice gis ngeen ko li fi wax yëpp yaakaar naa ne temps bi sax doyul mais sama réalisateur bi comme nee temps bi jeex na mom faw ñu xaabaabal noonu gis nga ko nee len leen saa su ne ngeen ko bëggee rek ni rek lañ koy defé fi rek lay xewé ci inforemi.com di leen jox dig daje ba benen yoon rek ak keneen ku la gënal ba benen yoon inshallah ciao ciao